ba tey xale yi ñuy ànd ak ñun ñu bëggal ci alquran am na suñu borom wàccee barkib alquran jotaay bi dañuy euh, waat suñu dong bi ci topp muy Ahmadou Ba Ahmadou Ba ñu bàyyi ko ci daara salaam ba Muhammad Ahmad tafaddal bismillah iqra qawlahu taala ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ۖ ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزعين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون fasabbih bihamdi rabbika wa kun mina as-saajidiin wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyaka al-yaqiin الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين إنا كفيناك المستهزئين قوله تعالى وأني إلى ربكم وأسلموا له من قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ۖ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين صدق الله العظيم Okay. macha allah ñu dégg alquran bi ñaan borom bi pour ko saxal suñu gën jotaay bi nag jotaay bi bëri kàmm la ñu bokk alquran ci fi bëri waaye ñu bàyyi xel rek ne dañ ne bii ñu ngi noté lépp yenn saa yi xale bi dina def benn yàq boo xamante ne amaana kenn ko yëg du ko yàq la yoo xamante ni ñoom xam nañ lu ñu ci def ko defee ndax duñ ko jubbantee mën naa gën a jaxasoo. kon incha allah rek ñu ànd ak ñoom ni ñu dee tekk tekkaaral rek ànd ak ñoom incha allah gën a jàppale xale yi kon dañu woo suñu ndongo bi ci topp suñu ndongo bi ci topp mu tudd Cheikh Diallo Cheikh Diallo mu ngi bàyyi ci daara alxaaji Ibrahima Seck Dakar yatafaddal mashkuran الشيطان الرجيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ۖ wala tacmaluuna min camalin illa kunna calaykum shuhuudan id tufiiduuna fiih wama yaczubu can rabbika min mithqaali darratin fi lardi wala fi lsamaa'i wala ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون اقرأ قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يعوق ويعوق ونسرا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلجوا إلا فاجرا كفارا rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidi adh-dhalimina illa tabara bismillahir rahmanir rahim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ما شاء الله xale yi ñu góorgóorlu bu baax incha ñu déglu rek déglu leen di apprécier jamono ji xale di jàng ndax loolu mën naa yàqal kenn ki ñëw ko defee ñu def sax liggéey kon nañu woo bu ci topp ñu ngi woo Malick Dramé Malick Dramé mi ngi bàyyi ko Daaru Hijra Kaolack ñu bàyyi ko ba région Daaru Hijra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 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشف فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون مالك اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه سبق بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون sadaqallaahu l-aziim. mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ñu ngi ànd ak yéen ci musaabaqatu Hablul Kartim loo muy loo multimédia ñu amoon fukki doom ba yoo xamante ni ñoo waroon a jàll yaakaar naa juróom-ñett yi jàll jàll nañ kon ñaari doomu ñoo ciy des dañoo war suñu doom bu ci topp moom soxla la. waaw kon xam naa wax ni tamit góor ñi kese alxuraan ju rafet soxna ñoo ko yor kon ñu ngi woo soxna Fabey Samb ñu bàyyi ko daara Abdourahman ibn Awf ca Louga waaw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 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصم لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصم في يوم عاصف لا يقدرون مما يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على لكم ما soxna Fatou Laye iqra'i min qawlihi ta'ala qad a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون أعوذ بالله من الشيطان وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله الناس لهم فيها دار الخلد جزاء أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم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 ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة idfa billati hiya ahsanu fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha zalika jazaau aadaillahi zalika jazaau aadaillahi nnaas lahum fiha daarul xuld zalika jazaau وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يلا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بالجنة بالجنة barakallahu fiikum jamiian ñu ngi jaajëfal bu baax suñu lëj taxkiim bi rawatina nag euh, seen xereñ waaye ñu ngi jaajëfal tamit public bi ndax wax dëgg yàlla ku toog fii bu fi toogee ba léegi déggul ni noppi leen wala bàyyi leen ndànk waaye lépp lu ñu wax rek ñu fekk si kon xam nañ bu baax jataay bi li fi am macha allah kon ñu ngi leen bu baax. di jaajëfal tamit mbokk yi nga xamante ni ñu ngi topp chaîne bi fu nekk ndax fu ne nii bi mi ngi en direct ñu koy def ci YouTube bi am na mbokk yu nekk fu sore sore sore ci àdduna bi waaye ñu ngi dégg li xale bi di jàng ñu ngi gis seen i commentaire ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp yi tamit kon incha allah musaabaqa bi bi li benn dongo moo ñu dese incha allah ñu mujj rek toog continuer li ñu doon def ñu woo suñu dongo bu mujj mooy Ousmane Cissé Ousmane Cissé mi bàyyi ko ci daara Ousmane Ibn Affan ci waawoon pël Ousmane Tafal en منكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وجلة أن مستكبرين به kon du euh, ñu def lu euh, euh, bàyyi leen rek ñoom ñu def seen liggéey waaye nag xam ni bis bi dafa am yeneen yi xew-xew ak yeneen i kàddu yoo xamante ni war na ca jàll kon xam naa ni incha allah dañuy toxu rek jàll. kon mbokk yi ni ñu ko waxee woon rek nii. Euh, xale yi def nañ seen warugar toog nañ jàng li ñu waroon mm. jàng déglu nañ leen laj na bi déglu na leen tamit joxe na moom tamit euh, li nga xamante ni mooy ay euh, notam incha allah ñu xaar mbokk mi di Abdoul Aziz Thiam mu dajale mbir yi bu ko defee ñu xam kan moo raw ak kan moo ci toog comme ni ma ko waxee rek xale yi ñoom ñëpp a gañe ndax ñoom ñëpp jàmbaar lañ am nañ fi toog jàkkaarloog mbooloo mi jàkkaarlook sëriñ si nga xamante ni ñu xam alquran lañ ñu ci xereñ lañ ñu ci miin lañ toog nañu jàng ànd ak dal jàng alxuraan ju set kon ñu ngi leen ñaanal yàlla def euh, defal leen tawfiix ñoom ñëpp yàlla na ñoom ñëpp execo ci première bi bu ko defee ñu jox leen ñoom ñëpp kon incha allah dañuy bàyyi rek euh, programme bi continuer comme ni ñu ko waxee mooy dafa am yeneen kalima yenn kàddu yu war a jàll ndax bis bi wax dëgg yàlla am na ñoo xamante ni taxaw nañ ci bis bi ak ñoo xamante ni wax dëgg yàlla liggéey bu rëy a rëy def kon dañu daal di tuxu rek dellu ci suñu mbokk Mansour njaay bu ko defee moom li des ci programme bi mu wax ñu ni muy tëddee xale yi tamit bëggoon nañu suñu ko temps bi mayee am na ñoo xamante ni fekkee wuñu yenn xale yi seenu njàng bu ko defee bu ñu ko waxtu wi mayee nag ñu may leen ñu mosaat tuuti waaye loolu ci kaw mu xaj fi incha allah kon faddal mashkur shukran ya cheikh saad abi wa shukran ala hadihi allajna alxaakima kama nuxassis alshukra aljazil lilmutasaabiqin allazina attaru hadihi aljilsa bi tilaawatihim aljamila walmujawada shukran barakallahu fikum jërëjëf Cheikh Saadu Abi ñu fas yéene wëyal li nga xamante ne moom mooy programme bi ginnaaw buñ fi dégloo euh, lenn si ay jàng yoo xamante ne wax dëgg yàlla ku ko dégloo rek sa xol bég na ndax xale yi ku leen gis xam ne boo moytuwul kii si ëppale ay at boo moytuwul àggul si 15 ans donc gis ngeen itam jàng mu set mi nga xamante ne moom leen fi jàng loolu ñu koy gërëmee ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen doon jàngal waaye aussi di ko gërëmee ñi nga xamante ne ñoom ñooy seeni wayjur ñi leen di xiirtal si alquranul karim di si gërëm itam jury bi nga xamante ne itam vraiment ñu ngi def liggéey bu mucc ayib kon lu njëkk ñuy ñëw si euh, jury bi dañuy dugal quelques mots yoo xamante ne yu am solo la ci bés bi ndax umpul kenn ne mbir mii nii taxawal ko yombul mbir mu mel nii def ci sa alal yombul nit am na alal mais gëstuwul li nga xamante ne moom mooy diine gëstuwul li nga xamante ne moom mooy alquranul karim nit ñi dañuy faral di sawar di dugal seen alal foo xamante ne du foofu waaye lii ne lii ngeen di gis nii ku ci dugal sa alal mooy def nga li nga xamante ne moom la yàlla subhaanahu wa taala di wax naan tijaaratan lan tabuur ku si dugal sa alal sànni woo ko ndax alquranul karim dalay fay fii di la fay ëllëg yowmal qiyaam te alquranul karim bokk na si li nga xamante ne dafay ràmmu jàmbi yowmal qiyaam kon yal nañu yàlla boole saxal ñu si ñi nga xamante ne ñoom ñooy ahlullahi wa xaasatuhu muy ñooñu alquranul karim kon mbokk yi dañuy oo euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxawal bés bi def si seen alal nga xamante ne sonn nañ lool ginnaaw bi mbir mi tàmbalee ba fi ñu agsi nga xamante ne ay jafe-jafe am na si organisation bi temps bi lii mu laaj si alal lépp ñu fourniral ñu ko kon nag jaadu na bis bu toll nii ñu oo leen fii ñu ñëw waxa mbooloo mi wax ñu fiin jaar wax ñu itam li nga xamante ne moom lañ ma si bés bi waaye tam wax ñu itam perspective yi nga xamante ne ëllëg dinañ si ñëw si liggéey li nga xamante ne moom mooy alquranul karim kon dañuy oo ki nga xamante ne moom mooy al oustaz Abdoul Aziz kamara moom moom mooy directeur général bu baytul quran fi Sénégal baytul quran yaakaar na ba muy xalaat di ko boobu man ak moom ñu ngi Égypte di jàng donc lu njëkk muy ñëw Sénégal la amoon projet boobu noonu yàlla dogal mu ñëw fii taxawal projet boobu ba tey bay baytul quran di liggéey si wàllum alquranul karim di vulgariser li nga xamante ne moom mooy alquranul karim ak réalisation yi waaye itam ay projet yu bari yoo xamante ne mu ngi si kanamam fas yéene euh, dox ànd si ak ñi nga xamante ne dañuy jël seen alal di ko def si alquranul karim kon al ustaz abdul aziz tafaddal mashkuran wa majuran asalaamaaleykum ah, wa rahmatullah xam xam naa ñu wax kon alhamdulillahi rabbil alamin euh, parce que lu mel nii buñ ko réaliser ba mu egg fii mun nañu wax ne mbooloo ak lu ne du man kase mbooloo ñoo ci jàpp ba mu ba mu mel nii xale yi nga xam ne ñoom ñoo doon jàng fii ñoom rek ñoom ñoo jara teral lu ñu am yeyoo nañ ko bu ñuy wax sargal ñii la moo tax lu ñu leen tegal rek aajowoo nañ ko di rafetlu bu baax a baax di gërëm seen sëriñ daara yi nga xam ne ñoom ñoo leen tàggat ba ñu mën lii euh, di sant tamit jury bi bi nga xam ne ñoom ñoo taxawee liggéey bi parce que bu dul woon ñoom tamit mbir bi du yomb waaw mu am ñett yoo xam ne yaakaar naa ñett yooyu buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko waxee rek yaakaar na ne matal nañ lépp parce que décor bi nga xam ne moom lañ doon def fii ku ne xam ne ni lu rafet lii coono la am mbokk yoo xam dañu volontaire ñëw pour jàpp si démb liggéey si ba mu ba mu jag ba mel nii moo tax ku fi dugg rek kontaan xam ne lii lu lu lu lu jëm lu lu lu jaar yoon la euh, mu am ñett yoo xam ne bëgg naa ko souligner bu si njëkk moom mooy kër gi ñu nekk parce que yombul place bu mel nii mun nañ fàttali sax concours bi fan lañ ko commencé woon ba mu toll fii bu ñu delloo ginnaaw ñetti at ci ginnaaw mu tombé woon ak Covid bi mu ngi toll tey ren mooy troisième année bi troisième édition bi première édition bi ñu ngi ko doon def par internet nga xam ne boobu jamono jooju pour nit ñi dajaloo du yomb ñu fexe di ko def si internet bi kenn ku nekk di ci participer ñu jàllale ko. deuxième édition bi ñu ñëw jàllale ko fi nga xam ne moom mooy siège bi maison di Coran ñu jàllale ko foofu euh, ñu gis ne daal war nañu commencé évaluer affaire bi mu gën a kawe ñu continuer waat ren première tour deuxième tour ñu jël ko def ko bâche mais mais final bi dafa mel ni ñun xajatuñu fii am na feneen fu ñu soxla pour mën ko fa defee waaw kon liggéey yooyu yëpp lu ñuy waajal la bis bu ñu paree fii rek war nañ ko waajalaat léegi léegi pour mën a xool déwén parce que lu organisation bu bu bu métti la waaw moo tax loolu foog ñu waajal ko waaw parce que nit ñaa ngi si biti ñeneen ñaa ngi si ginnaaw waaw loolu yëpp ngir bëgg alxuraan euh, bu njëkk bi ñuy wax moom mooy. ki nga xam ne moom mooy njiitu barab bi ku xool barab bi ak ni mu ni mu ni mu adopté ak li ñuy def nga xam ne amul oto buy romb amul dara yombul kilifa gi bi ma ko waxee muy directeur bi ma Thian bi bi ma ko waxee automatiquement daf ne ma ah man de xewal googu de waroo ma ko bàyyi mu dem indi ko fii waaw loolu nit bu la ko deferee war nañ ko sant war nañ ko sant parce que yombul mënoon na ñëw ne dañ leen koy luwe wala dara mais daf nañu ñëw leen ngeen def ko fii waaw pour beneen bi sax mu ne ma alxuraan gi ñuy jàng fii rek loolu njariñ la boo xam ne bu njariñu kër gi lépp beneen bi moom mooy équipe bi ngeen gis nii yëpp ñoom ñëpp fii la ñuy ñoom ñëpp kenn ku nekk bàyyi si li ngay def ñëw jàpp si liggéey bi euh, di wax ne maison du Coran si si si euh, disponibilité comme nga xam ne moom mooy borom barab bi maison du coran fii lañ ko commencé Cheikh Omar seede la si